asalaamaaleykum uh, wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum mbokki jullit yëpp asalaamaaleykum mbokki taalib yëpp ñu ngi fii ci bërëb bu tedd ci ay jëmm yu tedd sëriñ Assane Diaw ànd ak waa axlu xasida suñu jëwriñ yëpp toog nii fii ci kër gu tedd kër suñu Amadou li ñuy fas yéene am yëgle bu am solo bu ñuy jëmal ci mbokki taalibe ak mbokki jullit yi muy bis bi nga xam ne moom la sëriñ Assane Diaw di woote fee ca Touba Guédé bitigu Seydou muy tombeek fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu 1444 fukki fan ak ñeent ci digg tabaski. Mm-hmm. waaw 1444 di tombeek juróom ñetti fan di samedi 3 juin 2023 incha allahu rabbi sëriñ Assane nag mi ngi ciy fas yéene woo mbokki taalibe bi yëpp jànkatu xasida yi jànkatu alxuraan yi. waxtaankat yi ak mbokki jullit mbokki taal bi yëpp rek ñu ànd ak ñun ci bis boobu bis boobu nga xamante ne moom la suñu kilifa gu tedd googu feeñoon jamono muy Serigne Saliou te ku ne war koo delloo njëkkal war koo ñaanal kon bis baa ngi noonu ñu ngi ci xaar ñëpp di wax yàlla suñu borom dafa tawfeex ba ñu fekk ak jàmm yegg seeg jàmm moo te ko si alhamdulilahi rabbil alamin di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf